الرحمات الإلهية والفيوضات الربانية وآل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yu tedd yi daje ci barab bi fa tabarakallahu ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam ñu ngi leen di ziyaara di leen baalu xaq te di leen kabaal di ñaan mawlaana subhanahu wa taala yal nañu boole baal ñu ngi jiital ci nuyoo bi surafa yi fi teew yépp jaare ci shérif makki shérif ibrahim haydara tijani ak suñu buntu nag muy shérif maamin haydara fa tabarakallahu ndax mooy suñu buntu ci alu bayt nuyu suñu wayjur wi ci biir te taxaw nii di wax waaye toog yore kurusam muy Cerno Muhammadul Bachir ataala allahu baqaahu wa nassara Cerno Muhammadul Bachir ñu ngi koy ñaanal yàlla fa tabaarakallahu mag ñu mel ni moom bareetul kon bu ñu ko amee ñun ñépp war nañu koy ñaanal gannaaw bu ñu ko tàllalee loxo mu ñaanal ñu ngir la daloon sahaaba yi ci rasulillahi bar ñoo dal daf leen a tàggu ba ni leen day dem ñu ne ko yaa rasulallahi fan wi guddul ni 63 ans jalal rek ngay dem mu ni waaw ndaxte sama mission mat na te lu ne ñaanloo ngeen ma ko waaye masu leen maa ñaanal gudd fan comme mission bi mat na damay dem Cerno Bachir fa tabaarakallahu ñu ngi ñaan yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ñu ngi ñaan daal di toog ak moom di ko gis muy wér di man di rafet di ñaan muy nangu ba mu am juróom benn fukki at yu tàmbali ren ñu doog a xool ba xam su boobaa dañuy bàyyi mu demam dañuy dolli nuyu kilifa gi ñu fi fekk Cerno Madani fa tabarakallahu Cerno Madani ñu ngi koy ñaanal li ñu ñaanal Thierno Bachir ñaanal suñu sëriñ sëriñ Cheikh Omar ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir ak mbooleem usra maam Cheikhul Haaji Omarul Fuuti ku nuyu bu baax fa tabaarakallahu kilifa yi jaare ko ci alhaaji Cheikh Omar aan Cheikh Omar yàlla la yàlla sàmm li ngay sonn ci sa kër maam gi suñu boroom a tax nga koy def gis na ko yàlla na yàlla fay loo yóotu yàlla na ci jot loo dàq ji yàlla ko dab lu lay dàq yàlla bu mu agsi mbokk yi ku gis ni ma taxawee di wax xam ni dama tiit mun israha lam yuf damak xoolu waaye la ma soxla mooy ba muy àgg ca laqad aqumu maqaaman law yaquumu bihi ara wa asmau maa law yasmau alfiilu la dalla yarudu illa an yakuna lahu min arrasuli bi iznillahi tanwilu ni ko nag waaye inna arrasula la sayfun nabi ni ko la nuurun mu ni la nuurun yustadaau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu dama mu ni nabi bi ma jàkkaarloog yow bi may agsi sama jotaay bi ma toog yi may dégg gaa yi di ko wax aqwaalul wusaati yi may dégg gaa yi naan ay waay Kaab ibnu Zuhayr fuñ koy gisee baray ko mu ni ko bi ma agsee ba sukk ci yow tiit naa tiitaange goo xam ni fi ma toog gaynde fit wi mu yor ak force bi mu yor bu ko boole woon ak bu ñay bu toogee sama palaas dina lox ngir tiit mu ni ko waaye sama tiitaange lenn rek ku ko yóbbu nabi ni ko lan la mu ni ko dama xam ni ki ma jàkkaar lool mooy kii jéggale moom la yàlla ni fa ma rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan ghalida al qalbi lan faddu min hawlika ma xam ni njëggal ci yow rek lañ ko yaakaar nabi ni ko yow la kan mu dindi kaala gi sahaaba yi génn jaasi yi nabi ni xaar leen ko kaab ibnu zoyru jox ko loxo ni ko ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah gaa yi ni ko yow yaa mu ni dama xam ni kullu bni unsa wa in taalat salaamatuhu yawman ala alatin hatbaa mahmulu ma xam ni bisu dund du bisu dee du bisu dund ma ni naa ñëw rek tuub si ndaxte nangu naa nag ni waa ji mooy rasulillahi waaye foofu laa toll lu ma fa yóbbu lu waral ma tiib ak ni ma miine jotaay man sama maam da daan sama papa da daan gàmbu papaam da sama papay papa da daan gàmmu man bi may judd sama papa daa gàmmu ji fekkewu ko bi mu ñibbisee fekk ma judd man dañu ma tànn béere gàmmu sama bisu ngénte dañoo gàmmu sama juróom-ñetteelu fan dañoo gàmmu waa man ndax war naa tiit ci gàmmu waaye lu tax ma tiit mooy fi ma taxaw ëttu maam Cheikhul Haaji Umarul Fuuti sama maam cheikhu omar njëgën moom la ko suñu maam alaaji ahmad baro mi jur seyna bu njëgën jur xalifa mu jur ma moom la ko tudde kera bi mu faatoo maa teew cerno muntaka moo ko jullee sama maam alhaaji ousmane njëgën moo jur haaji ibrahima njëgën mi alaaji ahmad baro njëgën ko jur mook mu mi jur xalifa mu jur ma ñoo bokk benn baay Alaaji Ahmad Baroo leen jur kera bi mu faatoo maa teew Cerno Muntaxa ko jullee sama maam Alaaji Ahmad Saxiir Njëgën kera bi mu génnee àdduna Cerno Haadi Taal bi nekkoon Égypte moo ko jullee waaw ñii borom xam-xam yii nga xam ni say maam ñoom la ñu yaakaaroon bu ñu tàntee tànt bu tol mii nga doon jaam bu doyadi bu xam sa bopp ñu jox la kàddu ni la waxal doo tiit waaye xam nga lu yóbbu tiit gi mooy xam naa ni tiitaange bi gën a rëy lim ma mën a jural rek mooy daanu dee te comme ñii ñoo jule woon sama maam bu ma deewee ñu jullee ma sama affaire baax waaye mbokk yi lu ma tiit tiit dinaa wax ni Cherif Ibrahima maa ngi jéggalu ndax fi laa waroon a xadara si quatre heures nga ñu joxoon rendez-vous dama jullee jumaa taseet départ yoon wi xat ma jaari mbuur dem fekk ñu tëj autoroute booba ma doog a dellu si jam ñaajo pour ñëw looloo ñu tardeel waaye ñu ngi lay jéggalu ndax yaay suñu kilifa gars yi góor góorlu dinaay wax ni yàlla ñaar la bind ñaar yii kenn ki nattu la waaye tayu ko kenn ki yàlla ko ko teg kenn ki xéewal la yàlla ko ko defal mais ñetteel bi nag moo bari tey te ku mu dal ku ne yaa ko entraîné ba doon ko njub la pour ñi ragal yàlla ñu ni yaa rabbi man humul muttaquun ñan ñoo ragal yàlla suñu borom ni alladina yuminuuna bil xaybi mooy ñi nga xam ni dañoo gëm kumpa loo gisul ba pare gëm ko ku fi gis aljana am na jot ngeen photo aljana wala film jotagu leen ko de message bu jógee aljana jot ngeen ko cheikh alhaaji umarul fuutiyu fan lañu jàpp ni falane eh ma ni ñeme leen nag nee leen aljana ñu naan xamuñu ko waaye ñun ñëpp nag àjjana lañ yaakaar te wóor na ma ni jotaay bii téeméer yoo fi jël juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent bu ñu demoon ba àjjana ni yàlla ana maam Cheikh yàlla ni gisuma ko dañ ko naan baal ñu génn wëri ko waaye gëm nañu aljana gëm nañu safara gëm nañu yàlla te gisuñu yàlla na leer yàlla du ko ñuy gis laa tudriku l absaaru wa huwa yudriku absaara wa huwa latifu lxabir ma ni yàlla yàlla lu ñuy yëg la waaye du lu ñuy gis te du lu ñuy daj Sénégal nag neexatul waxtaane dama gis yàlla jibril moo ma tijjil buntu bi jibril moo ma attaayaal jibril daa xàmmee suukar ak xorom bay attaaya jibril boo ko joxee baraada xàmmeewul ndox ak warga ndaxte ñoom du ñu lekk du ñu naan laa yakuluuna wala yasrabuuna wala yanaamuuna du lool la ñu wax koo xam ni lekkoo naanoo nooy togge muy benn kon ñi ragal yàlla yàlla ni yuminuuna bil wa yuqimuuna salaata dañuy julli fii day fii waa li ngeen doon xadara toog rek toog nu ngeen ko doon defee sax bi ngeen toogee allah allah allah nu ngeen ko doon defee fekkew ma ko de ku ne ci tànt bi te man ko nañ ma fàttali nuñ ko doon defe baax na baax na baax na bu ma dajale woon sama waa daara samay xaale ya ca daara ja di jàng ngoon jot ma dëj leen ñu toog ñu toog fanaan nogay nogay nogay nogay nogay waaw ku ñibbi looy def doo jël sa doom yóbbu ni tafsir dof na xoolal mag ñu mel nii sikkim yi weex tàll tàll ñu bàyyi seen lépp ñoom Cheikh Oumar Anne ñii ni ñu ñàkke jot bàyyi lépp ñëw toog rek toog sukk allah allah allah allah mooy lan yàlla yàlla yàll yàlla te ki nga daan yàlla du la ni ah mais loolu mooy al iman billah gëm yàlla te gisoo ko dajoo ko da koo yëg Serif nee na ma ma ma ma lu ngeen doon wax ngeen ni allah allah allah ku ne ci ku ne ci tànt bi boo ko waxee yàlla nga fekkee déwén wax leen ko ma dégg allah allah baax na baax na baax na Serif mani boo ma fekkoon sama daara ak cofeel gi nga may ëmbal yépp ma teg sa doom teg doomu shérif maam yi ñëpp ñu wër ma ma leen naan leen aywa dee leen wax ngañ ngañ ngañ ngañ boo kon lu waral ñuy woo yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla léeg sax am ci magi tukkulóor yi mag moo xam ni yëngatu na ba ni allah nga làmm dënn bi mu tàng jër ngir allah allah mooy lan al imaanu billaahi ngëm day doon nutqu bil lisaan làmmiñ yi dañ naan allah mu ànd ak i'tiqaad fil xalbi xol bi day gëm allah mu ànd ak amal bil jawaarix bi julli jotee lu def bi timis jotee lu ngeen def lii lan la yëkkati loxo du jëf sëgg nag siggi kon day ànd ak amalun bil jawaarix kon yàlla nee na yuminuuna bil xay bi yemuñu ci de wa yuqimuuna salaata dañuy julli Sénégal rek laa gisee réew mu ne ñun gëm nañu yàlla ay jullit piir lañu te duñu julli duñu woor bu ñu deewee dem aljana ma ni amiin da di tàmbali wala dañuy tàmbali waaw kañ c'est que borom télé yi nag la fekk fokk ñuy waxtaan ak ñoom parce que Idrissa li ma gis mu joxe ko fi yëpp fii la jóge ñii aaya boo tàmbali ñu àggale ko te àggale aaya taxuma fee taxaw ah, Cheikh Oumar sama gars yi waaw kañ ah Cheikh Oumar macha allah dafa mantaani taalibeem nee naa sëriñ bu la dikk aljana te du lijjantil paasu kaar bul ko gëm ma dem ah Idrissa bu ma soli de baal ma kii baal ma def direct bi rek waaw kañ ay dara yuminuuna bil xay bi foofu laa yemoon Cheikh macha allah Cheikh Omar baal ma waxtaan xel dal na baal ma waxtaan gars yi ma wan gannaaw déet yow moom yaa dara yàq waxtaan Pape Malick yaa wax bu leen yàq waxtaan oustaz yow yaa koy wax kon maa ngi ci imaanu billahi gëm yàlla gëm yàlla ma ni Sénégal rek moo am gëm naa yàlla jullit piir laa bu ma deewee dem aljana te du ma julli du ma woor ma amiin yàlla na ñépp dem aljana laay ñaan waaye ma ni di julleeg di woor moo gën a wóor dégg naa léegi Cerno Madani mu wax ni juróomi ponki lislaam yi shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami salati wa itaai zakati wa sawmi ramadana wa hajji baytillahi alharami mu ni juróom yi ñooy prier yi téye l'islam mu ni waaye bëgg yàlla hubbullahi akbaru min haadihi moo gën a màgg yi xam nga lu tax am na ñoo xamante ne ñu ngi wax ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah te yàlla neen seen wax ji du dara ndax yaquluuna bi afwaahihim maa laysa fii bu ñaareel bi Cerno Madaani nee na bëgg yàlla moo gën a foor julli déggu leen suñu borom subhaanahu wa taala ni ah, xaamu kusaala yuraa'uuna annaasa wala yadkuruuna allaha illa qalila amul ñoo xam ne bu ñuy julli dañuy julli ngir wanewu rek action mooy tax ñuy julli mooy toog nañ ci mbooloo ñëpp di julli ñu julleendoo bu ñetteel bi mooy itaay dakaati alladina yunfiquuna amwaalahum a annaasi kon am na njëriñ kii joxe ngir ngis am na njëriñ bu ñeenteel bi sawmi ramadaana man lam yada qawla zuur wal amali fa laysa lillahi aajatan kon bañ a lekk am na njëriñ ma ni aji màkka alhajju ashurun maaluma fa man farada fihinna alhajja fala rafata wala fusuqa ki aji di def rafas ak fusuq ajam gi am na njëriñ xubbullaa nag bu duggee ci sa yi yii boo koy def yàlla nga yëg muy benn suñu borom ne gaa yii mën a limal alaawu dem mi rabbihim ci njub gu jóge ci seen borom muy yàlla kon yàlla moo leen may ñu gëm ko gaa yi afa man saraha allahu sadrahu lil fa huwa ala nuurin min rabbihi yàlla nii man maay ubbi xol bu ma neex ma def ci leeru lislaam muy benn ku ñaareel ki yàllaa ko ko nattoo bala may ñëw ci maam Cheikh Umar ak rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma ne ku ñaareel ki yàllaa ko ko nattoo inna alladina kafaru sawaun alayhimu أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ah sëñ Abdoul Aziz ñëw na loxo baa ngi ci poos bi ñu may ko Abdoul Aziz ndeysaan ay waay Cheikh Oumar yaa baax te man de gars yi li ma jaaxal moom saraxe benn benn la gars daan def mais fii moom dañuy dajale benn rek joxe noonu. ah waaw fii mooy kër maam Cheikh Oumar waaw waaw ridd wirdahul asba fi nga koy gëme innal manahila manahil yaa ngi nii ah. yàlla bu leen ko ñàkkati fi en de gars bu leen ma mantal de Cerno Cheikh bu may dem nga ñaanal ma cat ndax dañu naan fukki minute la fa wax jële fa lu dul jeex te incha allah déwén moom damay julli si juma ay tànn yooyu yëpp du ma dal juma rek laay ñëw julli si kon maa ngi ci iman billaay ñu teg ko fële bàyyil baal ma rek baal ma ma ñëw ci alkufru Cherif est-ce que xam nga kufru baatu kufru mooy suul jëf gisoo baykat baykat lu waral ñu koy woore kaafir baykat kaafir la tudd xoolal alquran yujibu zuraa li yagiida bihim alkuffaar kuffaar foofu baykat yi la xam nga lu waral yàlla tudde leen kaafiruuna mooy ñi nga xam ni yàlla da leen a defal ñu bàyyi fi yàlla di kañ keneen ku dul yàlla ñooñu yàllaa leen ko nattoo yàlla nee na rasulillahi sallallahu alayhi wasallam boo leen waaree ak boo leen waarul duñu gëm ndax man yàlla maa kaste seen xol yi maa kaste seen nopp yi ba ñu dégg lu baax am na koo xam ne jotaay bi muy def fii di déglu yàlla di déglu allah jeeg laay laay la laaji dem fii fii ci almadi moo ko ko gënal te foofa day fay doog a dugg fii doo fay dara si si sax bala ngaa toog ñu fompal la xoolal xoola Cerno Cheikh ni mu ñu lalale te ñun ñëpp ay taalibeem lañ bu ñëwoon ñu toog ci suuf mën naa am waaye bu ko defoon noonu kenn du toog dañ naan mënula wut sax fu nit ñu toog te pourtant ñun lay defaral moo ñuy lalal moo ñuy tàntal tegal ñuy sées fompal ñu séesi togg ay ñam jox ñu ba pare di ñu sagal jox ñu ni wax leen te ko ñoo wax ëpp ñu xam-xam ba pare di jël alalam di ñu jox suñu borom ni ka sawaun alayhim a ardartahum am lam tundirhum laa yuminuun dama lay jox li nga xam ne boo demee mhm. nga tidd nelaw jox sa jabar kii sayxu allahu akbar bàyyi leen ko jóg ngeen koy téye ñu ko doon téye lii bu ma ko yóbboo sama kay tay du neex ngeen defee yàlla la yàlla fay ci barke rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dencal ma kii nag moom moo ma ci gën a neex moom léegi day bokk ci bagage yi rek waaw kay suñu wa taala am na ñoo xam ni boo leen ku binda samay ni juróom-ñaar ñu ni yàlla waaye boo leen jaamu yàlla ñu ni jaamuwuñu ko yàlla nee na maa ko def man yàlla subhaanahu wa taala maa jël ñoo xam ni maa kaste seen xol ba ñu gëm loo ci man gars yi li ma bëgg a waxtaane nag bala may dugg ci rasulillahi sallallahu alayhi ñett rek laay waxtaane xam nga mooy ban mooy bi nga xam ne nag ñun ñoo ko def suñu bopp wa min annaasi man yaqulu amanna billahi wa bilyawmi alaxiri wa ma hum bi muminin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 الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولا لهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم سنبرمني am na ci ñun ñoo xam ni ñoo ko tey jël njub jaay ko jënde ko réer teguma leen ko de mooy feebaru naafiq loolu mooy suñu problème Chérif Ibrahima ko junj léegi bari na koo xam ni bu waxee soxlaam Cerno Cheikh Cerno Cheikh faj ko mu ni moo fi gën waaye bis bu amee soxla wax ko no Cheikh man naa mu fàtte ko baa manu ca dara mu ni sëriñ si dañ lay seetaan pourtant moom xam na ni Cerno Cheikh doomu Cerno Bachir la surtout maam Cheikh Oumar la li ci ay maamam mu ngi ci moom te yamul rek ci may sëtu Cheikh Oumar déedéet dafa góorgóorlu ba dem ca bi jiddi laa bi jaddi kulla mujdin faal jaddun bi laa jiddin bi mujdi dani man sëtu maam Cheikh Oumar laa waaye du ma toog rek bàyyeeku damay liggéey di jaamu yàlla pour am ci wàll wi yow xam nga ko waaye wax nga ko mu wax la lu la araadaw nga ni sëriñ si da ngay waaw yàlla nee na mooy ñi nga xamante ni nag fii qulubi maradun xol yee feebar ku sa xol feebar nag da ngay faju ci neexul de li may feebar bi leen dal xam naa ko bar feebar la nabi ni feebaru al asad ki ñaan am na koo xam ni fi ne mu nga toog fa mu toog xam nga lu muy wax ah Cerno Cheikh de xew a meren kenn newu fa fi kenn newu fi xadara bu toll nii te dara tàmbaleegul lii mën nañu ko tudde rek bu doon ni ab match la mën nga wax ni kii entraînement bi la donte mooy jaamu yàlla bi nag ma def ko noonu par rapport ak xew laay wax par rapport ak bu doon xew am yaxsuduuna annaasa ala ma aataahum allahu min fadli yàlla ne moo ki ngeen di iñaane lu waral ngeen iñaane ko xanaa xamu leen ni cerno cheikh li ci moom du ci moom du ci baayam ci man la man yàlla maa ko ci def lu ci nit man man nag joxu leen ma tem de man maayu xalaat rek di wax ngeen baal ma bu ma waxee lu dul noonu mani yàlla nee na bala ngay mere Cheikh Oumar wala ngay mere baayam mere ma man yàlla man yàlla maay seet lu ma neex ma def ko te maa jël la ma neex ma def ko ci Cerno Bachir waaye ma jël la ma neex man yàlla ma seet ci biir njaboot tamit ma am ku ma defal xaw ma ñëpp nag waaye mu leer ma ni man yàlla defal naa daal Cheikh Oumar doo ko nangu boo ko nangoo noppalu ndax alxasuudu laa yasuudu boo ko nanguwul da ngay tardé doo dem Sénégal man nee naa leen li ma gën a naqari Sénégal benn baat bu ñuy wax la mooy senegal du ñu dem te bëgguñu koy dem waay waay ku demul xanaa boo demul wala boog boo demul nga bàyyi ñiy dem ñu dem nga maandu ci ñoom waaye yow de moo bëggoo koy dem dama romb benn jigéen mu ni ma tafsir ma ni la béyka mu ni ma billaay li nga wax nag yow de doo dem ma ni ko du ma dem man damaa dem ba ñëw nii damay dellu kaay ma la ni ko fa lu ma bëgg a jàngale ndakate al hasadu yaakulu al hasanati kama taakulu naaru al hasad bari waana bari waana koo xam ni ay maya ma nga ko wër li waral jotu ci may ya dañuy lakk ñu ni lu koy lakk ñu ni xolam moo iñaan dafa iñaane ku yàlla defal teraanga mu ni du moom ka yàlla defal dontelee du jullit dontelee dontelee du jullit dontelee xamoo ko waay waay nangu ko ndax boo ko nangoo day ko ci al imaanu billahi wa malaika wa kutubi wa rusuli wal yawmil axir wal xadari da ngay nangu dogalu yàlla maa ngi dem ci rasulillahi sallallahu alayhi wasallam pour nangu dogal ci laay génn rek jëm ci rasulillahi ah Cherif Maami dinaay faral di nettali góor gi nga xamante ni dafa nanguwul dogalu yàlla waaye kera ba ko taalibeem jàngalee la nangu dogalu yàlla dafa ànd ak taalibe bi di wàcc oto bi taalibe bi di ko tëjal buntu oto bi képp baaraam bi loxo bi dagg deret ji sotti sëriñ bi ni ya taalibe bi ni ko sëriñ li jarul ya dafa gën ci yow moo tax yàlla def la ko mu ne ko yow gaañ ma dagg sama baaraam ba ma kuuñ ñii ba pare di ma waar maa la dàq waaraate foofu yow da nga ca kaso bëgg a jëm yóbbu ko tëj ko ca kaso ba mais bi ñuy tëj taalibe bi bay tëj buntu bi mu ni leen déglu leen ma yóbbal yóbbante leen ci sëriñ nee leen ko tëj gi ma tëj dafa gën ci man bu gënul woon bu ma tëj gaa yi dem wax loolu sëriñ bi sëriñ bi ni ba leen ko foofu muy reewanto rek waaja ca kaso ba sëriñ baak loxoom di faj loxoom di faj loxoom ba yàlla dogal loxo ba wér muy doxantu baal ma ma joxe misaal ca ndar di doxantu ci poowu ndar bi ay ay bandi jàpp ko yeew fu ma jëm ñu ne ko boo àggee di nga ko xam ndekete buuru ndar ñoo laaj benn ñoom moom lañu laaj benn sarax ni ko góor gu mel nii ak ni góor gi daal day doon góoru tukkulóor góor gi daal day am sikkim bu weex góor gi daal day am kaala gu wert góor gi daal day sol daraaju weex boo ko amee bu ñu ko yeewee tëmbal ko ci dex gi di nga am li ngay wut mais malik ma mettali la alqadaru billah nga nangu ko iman bil qadar bi ñu jàppee góor gi bay ndil buuru ndax buur bi xool ko ni waaw kii la de sëriñ bi de tegtal bii la ma joxoon daw leen woowi sëriñ bi ñu jëli sëriñ bi ko digaloon mu xool xool ni ko baax na de nagal ma def ci li ma ciy def nag ñu yóbbu ko saraxu géej di xool di xool di def di def ba tàllal loxo yi gis baaraam di puuñ mu ni buur oh sa sarax bi baaxul mu ni ko lu xew mu ni ko baaraam bi daa kuuñ te géej gi duñ nangu sarax bu baaraamam kuuñ handicapé du ko nangu fokk cër yépp day màcc nu ñuy def ñu ni ko bàyyi ko sëriñ bi ni ko bàyyi mu dem nga wuti keneen ñu bàyyi ko gis nga sëriñ ba ba mu demee kaso ba la jubali ci ci taalibe bi ni ko sawaay yow mënu mënox da nga am xam-xam mu ne ko ban xam-xam mu ne ko waay yow noonu nga ma sama baaraam bii nga dagg dafa gën boo ko daggul woon xanaa xamoo géej laa mu ne ko yóbbu géej mu nettali ko fi mu jaar taalibe bi ni yaa ma raw ndax yaa may jàngal yaa ma tarbiyate yaa may tarqiyate àggaguma waaye danga ma jàngal lu ma gëm te gëmoo ko yaa ma noon asa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun yaa ma ni woon yàlla ne léeg-léeg nga bañ mbir fekk moo gën ci yow léeg-léeg nga bëgg mbir fekk gënul ci yow sëriñ nanga mi at ma lay tëjal buntu ma su ma laa kepp ni ma la bëgge ba moo lay xool di jooy bu ma la keppee tayu ma ko looloo waral ma ni dafa gën sëriñ bi ni ko wax nga dëgg de waaye jéggal ma mu ni ko amul jéggal sëriñ ma ni tëj gi nga ma tëj mu ne ko waaw noonu nga dafa gën lu waral nga ni dafa gën mu ne ko foo mas di dem ñooy ànd te xaw ma woon lu xew mu ni ko bi nga ma tëjee nag yow rek ci nga génn te man maag yow a tolloo ñëw nuroo toppandoo laa ba nuroog yow bu ma àndoon nag yow kera bañ lay jàpp ñun ñaar ñëpp la ñuy jàpp bu ñu demee sa baaraam dagg sama baaraam du dagg kon mën la ñuy tëj jëggeej ga fa jëm man mi nga tëj nag ba waral tey jii ma sóobe ba jàppuñu ma yow mi ñu jàppoon ma dagg sa baaraam ba waral nga dellusi nañu àndaat te moytu ndar kon al iman bil qadar maa ngi woon ci nangu dogalu yàlla gis nga boo ko defee sa xol féex gars yi xam nga lan la xol bi nag bu féexee ba set yawma laa yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim xol ndab la ndab li du vide waaye boo ci génnee yu bon yi day am lu muy remplir moo xol bi lu muy remplir li muy remplir leen ne la moo loolu lan la mooy xubbu rasulillahi bi Cerno Madaani doon wax moom lay remplir bëgg sayyidina Muhammad yaa ngi wax de dafa mel ni booy yi nag ay naan di lañ xam nga fi nga dóor de li mu wax daal maam alhaaji cheikh umarul fuuti yoo ko wax borom bànjagara loo wax nga ni rasulillahi man nag benn nattu laa am benn problème mooy maam cheikh umarul fuuti yu man xaw ma ko waaye yàlla dogal na ma laaj ko koo xam ne lu mu wax dëgg la te xam na ko kooku kan la borom bone kaare baag sàkkale yàlla baag manto ba cheikh al xalifa doomi maam alaaji malik jag maam maam roqee njaay mu ni ma tafsir koo bëgg a xam ma ni ko maam cheikh umarul fuuti yu mu ni ma maa la koy wax ma ni ko wax ma ko mu ni lan waxaat ko Souleymane déggal nitu yàlla mooy xam nitu yàlla mais nitu yàlla bii moo xam sëriñam déggoo de nitu yàlla mooy xam nitu yàlla waaye nitu yàlla bii moo xam sëriñam mu ni ohaani maa ngi jànkoonte man sëriñ Babacar Sy bi shawqin ci cofeel goo xam ni lam azal fiihi faaniya man daal dañu ma di ci jiix cofeel gi daal dem naa ba àgg ci fanaa u mooy lu ma dajeel poto bi sax dama koy gis di ko woowe koo kooku ma sopp damay gis poto yi fii ah, barrière yi di ko woowe kooku ma sopp àgg naa ci fanaa u ba ñu naan seexal xalifa dafa dof moo ku kan la tahayatu min luqyal déggal tuddagu ko de taxayartu la ñenn ñi wax ñenn ñi dindi tomb bi ni taxayartu bu dee taxayartu mooy gëlëm naa taxayartu mooy tànn naa min luqiya alladi ci daje ka nga xam ni kaana nekk na haadiyaa di jubal man ki tax ma jeex tàkk jeex ci moom tàkk te tànnal ko sama bopp mooy ki nga xam ni moom da daan jubbanti ba ñooñu jub xocc moo jubbanti ba ñooñu jub xocc ak tarixa boo mën a bokk foo àggee ca yàlla la fa yóbbu fi amril ilahi junuudahu lahul lafu fi amril ilahi junuudahu ki may wax daal ñeen na allah fu tàppe baat ba la lafiif moom la ñu jële lafif mafruq ak lafif maqruun ca borom kitaabu tasrif ya lafu moom daal mooy boole mooy lem min amril ilaahi ci mbirum yàlla junuudu ak soldaaram ya mu doon àndal ey waxaat ko dégguma la ku ne ci tant bi te bëgg maam Cheikh Omar waxuma nii de da ngay jox loxo ki nga dendal ni ko baal ma ak baal naa yal nañ yàlla boole baal joxante leen loxo yal nañ yàlla boole baal ci barke rasulillahi Cerno Cheikh way samaam Cheikh Omar nee na sa maam Cheikh Omar moo wesaare baatu yàlla إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم تعال Serigne Babacar Sy ne sa maam maam Cheikh Omar sara jaay na nafsahu bakkenam xanaa xamoo ni maam Cheikh Omar noosul waaye moo tax ñuy noos <laughs> déggu leen ma de sa maam Serigne Babacar Sy nee na sara jaay na nafsahu bakkenam moo waral noosul waaye moo waral ñuy noos waaw lu waral mu jaay bakkenam mu ne yabxi rida lu mu bëgg ngërëmal yàlla gagaaya amoon ba yàlla naan la qad radiyallahu anil muminina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara fa alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alayhim wa asabahum fathan qariba sëñ Babacar Si ne maam Cheikh Oumar jaay na ba kanam ngir lan wut ngërëmal yàlla mi ñu bind wa yarqa maqaman fata marmahu aliya wa yarqa yéeg na <laughs> maam Cheikh Oumar sëriñ Babacar Si ne maqaaman benn daraja yéeg na pour ngeen dégg ma yéen ñi may waxal ndax waa fii la moom yéeg na ci benn immeuble boo xam ne ba mu àggee ca case escalier ba dañoo démonté échelle ba kenn mënatu fa jaar ba àgg fa mu àgg xanaa ku mu may loxo nga yéeg shahirun samaam ku siiw la fan mu ni la da suudaani nit ñu ñuul ñi xam nañu koy Cheikh Omar billaahi xam nga lu fi ne dof dof lu rek lama waxoon waaja màggalu Tuubaa woon ñu toog place de France bu Thiès oto yi dem mu ne ma lii lu xew ma ne ko yaako ko tey oto yi fu ñu jëm ma ne ko xam nga ko mu ne ma baadu màggal ma ne ko yaa ko mu ne ma lii bidaa la waaye ma ne ko daa jëmul sa kër maam rek bu jëmul sa kër maam loolu bidaa waaye maam Cheikh Oumar chahirul la def suudaani wal bidaani ñu weex ñi xam nañu kan ñu ñuul xam nañu kan mooy umarul fuuti yu boo ko xamul laaj ko Alpha Karabanta di nga xam kan mooy Cheikh umarul fuuti yi masari bi daadin wa man kaana xaafiya yusawi bi yusawi bi daadin wa man kaana xaafiya maam Cheikh aji yem la bi ci moom daanin ki ko jege ñoom mam Seydaaji Malick ña ko jege jamono tuuti wa man kaana xaasiya ak ñun ñi ko sori ñoo yem billahi duggukatu xalwa yi billahi lazi la ilaha illa huwa du fi ma taxaw a tax ma koy wax wallahi dama ko wax ngir yàlla duggukatu xalwa yi nga xam ne waxuma nag ñiy génn di ko nettali ñu koy def te yàlla tax néew na looy dugg xalwa ba génn te doo gis maam Cheikh Oumar ci biir génn wallahi néew na moo tax Serigne Babacar Sy ni ñi ko jege ak ñi ko sori ñoo yem ci moom ña ko jege moo leen doon yóbbu ñi ko sori moo leen di xëcc déggoo ma de ñi ko jege moo leen doon yóbbu ñi ko sori moo leen di xëcc moom Cheikh maam Cheikh Omar yuxaawiru l aqtaaru fuuta wa bambara ey ey ey ku ne ci tant bi daga naan Fuuta wa Bambara yu'aawiru al-aqtaaru Fuuta wa Bambara إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار yaram yi yaram yi daw na xol yi sedd na dama bëgg ñun ñëpp ñu àndandoo wax baat bi ndax élection yi ñuy dëkkmal yàlla may ñu ci jàmm kiy gañe gañe ci jàmm ñu ñuy gañe nangu ci jàmm bal du tàkk coow du am kiy gouverner gouverner ñiy gouverne gouverne ci jàmm ñi ñuy gouverne nangu ñu gouverner leen ci jàmm xam nga lu may ñaan baat bi mooy ñun ñëpp ñu àndandoo di wax ya salaam yaa salaam yaa salaam Souleymane dégguma de yaa salaam yaa salaam lahum daaru salaami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kaanu yacmaluun yaa salaam yaa salaam waaw këj sëriñ Babacar Si ni maam Cheikhul Xaaji Umar yuhaawiruhu al aqtaaru daf ko daan ablante gox yi continent par continent bu jógee les jem est jóge sidd dem nord mu ni Fouta pël yi bool Fouta wa bambara ak bambara yi waa Mali ñooñu xam nañu kuy maam Cheikh Oumar Fouti fu ne lay dem moo taal moo taal Fouta moo taal Mali moo taal Kajoor moo taal Waalo fu mu doon fune maam Cheikh Oumar Haaji Omarul Fuuti moom la yàlla jox flambeau bi bi mu jógee ci Cheikhuna Tijaani Chérif radiyallahu taala anhu maam Cheikhul Haaji Omarul Fuuti moom la ko yàlla jox moo ko taal fii ci Afrique sowu jant madawi bidai sirki lillahi daa'iya yudawi bidai sirki lillahi daa'iya Cerno Bachir maami Cheikh Oumar Bachir a ngi joobe sëy moom la Serigne Babacar Sy di joobe gis nga bi mu taalee ba lépp tàkk nag bu dul woon lii ya ko tax a jóg kon ñu ñëpp dofi maam Cheikh Oumar la ñuy doon bu ñu nee am na ñoo xam ne li ñu wax ci maam Cheikh Oumar waxuñu ko sax ci moom waaye tey boo leen tuddoon léegi rek ñu tëb mbëkk poto yi li fi maam Cheikhu Umar àgg àgguñu fa waaye àgg seeni soppe agg nañ ci boo leen tuddee rek ñu suppaaja lañ loolu nitu yàlla ki moo koy def ci ay nitam maam Cheikh Umar nag bi mu taalee ba mu takk dafa yore pikiiram di pikiir yu daal yi mu ngay faj mu ngay pikiir mu ngay vacciné yan vaccin bi daa i shirki ci vaccin wu bokkaale yàlla dalay fekk ngay bokkaale yàlla mu pikiir la pikiiru wéetal yàlla ba dootoo bokkaale yàlla bu la wax bu la pikiiroon pikiiru bëgg ko nga dof ci moom kon bu ñu ko tuddee nga xam waaye déedéet pikiiru la pikiiru bëgg ko bu la defaree ba nga xam ne lu ñu wax nga ne umarul fuuti umarul fuuti mu daal di jël pikiiram ne la defal nii loxo bi nga def mu dóor la pikiir tejj nga xam ne yàlla rek ngay dund yàlla dootu la sax mu ngay faj di daa i sirki ci yaa ngi daaneel xalaa daru la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah taal taal taal xalaa wéet na dëruhu jamonoom suñu jamono ji dafa neex a dunde sëriñ du dara jamono ji sëriñ loo wax ñu ni eskay boo sëqatee sax ñun la marsa waaye jamono ji muy dund sëriñ kenn nanguwul dund sëriñ xam nga booba lu doxoon ceddo gi mu jël ceeb yi def leen ay sëriñ min wasfihi ku mel ni maam Cheikh Hadji Omar sëriñ Babacar si nee na amul kaana nekk na yurtadaa di ku ñuy wut gërëm ci moom moom am na ngërëmal yàlla dañuy wut ngërëmam ndax ku mu gërëm yàlla gërëm la moom maam Cheikh Hadj falam tura fi ma xasahu llahu saawiya falam tura deesul gis coow lee bari rek maa ngi daaneel nag fi ma xasahu ci li nga xam ni allahu yàlla jagleel na ko sa maam Saniya bëgg lu la neex ñëwuma pour wax lu la naqari de waaye bëgg lu la neexi du tax may fen ndax bàmmeel man rek fay wéet billahi ku ñaareel sa amul moo tax bu ñuy tudd nañuy tudd ñeneen ñi ñoo xam ni ñoo bokk waaye maam Cheikhul Hadji Omar Fuuti yu damay wax ni gaa yi bu ñu bokkee école classe yi rawante na waaye nag moom daa bokkul ak ñoom école sax bay tolloog ñoom kalaas yàlla nañu fekk déwén yàlla nañu ko yàlla fayal wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. ولم يرد ما ليس الألي عنه راضيا axu siddiqi wattuqaa baal ma ak lan abu diini wattaqaa abu diini inna diina indallaahi lislaam beneen bi mooy wa man yabtaxi xayra al islaami diinan falan yuqbala mani rendez-vous bi dama koy joxe Idrissa Idrissa gis nga way yooyu dencal ma yépp ñu joxe rendez-vous 31 décembre kër Chérif Ibrahima Aïdara ak Tidiane fa laa fay àggalee incha allahu ndax li mbiram la du ma àggale lépp fii film bi ma tàmbali fekk ma kër Chérif Ibrahima le 31 décembre wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu tabaarakallahu tabaarakallahu mbokk yi ñu taxawal sapp yi ñu julli